asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah vendredi 12 janvier 2018 ñëw di sunu làmb commencé ko nag jeudi 11 janvier bi nag fi mu xëy ñëw ci alxames ji fenn la waanaam ci Modou daal la xëy ñëw ci alxames ji ki ci wax nag moom mooy Ngagne Diagne Ngagne Diagne daal li mu xam le mooy ñu ne ko Ngagne loo xam ci Modou mu ne Modou daal li ma xam ci moom lenn la mbër la moo xam ne daal ci wàllu xeex ñu ne ko am ah, mu ne mbër mu sadik la maanaam booy ba nga moom Ngagne Diagne lay dànkaafu ndax nag Modou Lo moom kon xeexam moom du jeex dof dëgg-dëgg la Modou di xeex ki wax loolu nag mooy nganjaañ bu RFM ñii moom dañoo wane seen bopp bu baax a lan la deuxième journée TFP bi nga xam ne moom la Fallou Ndiaye tëggoon maanaam daal kii nga xam ne moom mooy soq ak kii nga xam ne moom mooy Ramdan bu dóor ah wane nañ seen bopp de ndax bu dee Ramdan moom moo ca njëkk kii di doomu dàngu daal la xeexal doomu dàngu waaj di tibb ay ngi waaye kër baar bi di daal soq daal daa wan kii nga xam ne moom mooy ram daan leer nañ ndax nag moom itam daa waaj di tibb ay tànk de ba mu ne laal tànk kii nga xam ne moom mooy soq rek soq daal di jël loxo droitam ba rek róof ko ca mbagg ma rek xattar bi ko sànni ko mu jaaxan fële moom it mu romb ko fa daal di ñibbi moo tax daal yëglikaay bi ñu xam daal a moo nu xam ne tafatin moom bu yeboo VIP yi waaj moo loo Lac de Guiers numéro ak Gaye Gris Bordeaux ak Bombardier Tapha Tine dugaat na ci seen biir de bu fekkoon da leen a xaw a génn tuuti wala ngeen xaw koo raw tuuti newaat na sax ci seen biir fas yéene nag defante yéen yëglikaay bi bi xamal na waaj daal ba tey buñ continuer nag tey ci àjjuma ji yëglikaay bi xam ne tey daa xëyaat ñëw rek ci kan ci Modou waaye tey da koo booleeg adversaire am na keneen ku cay waxaat ko kan la Ipo Ngari ngeen xam ko sunu baay boobu central ci lamb ji la xam ne daal mooy lamb ji liñ dañ ko ca laaj loo xalaat mu ne xam daal mooy Lac de ak Modou ñu ne ko loo nekk na moom la mu technique ba mbay gay yor ñu ne ko mu ne mu ngi ci Modou Lô moom lu am la waaw ki ko wax nag moom mooy Hippo Ngary bii diggante moom dafa yàqu wala boog yàqu na de waaw loolu lan la Robert Diouf la diggante mag Yékini yëglekaay bi di su làmb moo ci xëy ñëw tey ah, la mu xam le ah, moom moo wax loolu am na leneen lu sunu lamb wax règlement la boo xam ne seen si ko fi maanaam tournoi simple yi bindu da fay joxe 1000 francs waaye nag règlement boobu daal wala seen wax ju ñu yëkkati moom daa mel ni maanaam buñ doon wax ju ñu wutal bayre la dañ naan sero bayre bayre amu ca maanaam kenn bëggut a dégg wax jooju waa kenn bëggu koo dégg de nag ba tey nu tëjee ca moom Yékini nag am na lu mu doon def Yékini ginnaaw ba mu bàyyee lamb ca 2016 nag da doon ngénte fële ca Sowal waaw waaw démb daal mu nga fa doon ngénte doom ju góor Cheikh Diop Yékini ak liiram boobu nga xam ne Mouhamed Diop la tudd kon Yékini nu lay ñaanal liir bi yàlla na yàlla guddal aw fanam wéral aw cëram ba ngeen fekke njariñam yaag ki nga xam ne yaay yaayam waaye ba tey duñ ca yem ndax nag tey la ñetti fan ginnaaw ba Cheikh Sidi Mokhtar génnee àddina nu koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko jégal ko te xaare ko aljana taaf ñu si barkeem ki ko fi wuutu di sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen jox dig daje altine ci yeneen yëglekaay asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey di vendredi janvier 2018 ginnaaw bi nga jàngee yéen kaay yi ba pare ñu ñëw si jàngat bi comme ni ñu nga waxee tey la vendredi ginnaaw bi ñu jàngee yëglikaay yi ba pare ah ñu ñëw nag si jàngat bi tey vendredi daal. waaw day njëkk ci bu jeudi bi journal bi xëy fësal Modou Lo ñu wane ko mu jàpp ci ndigg ba tax suuf waaye moom waxul alaaji Nganjaañ mooy wax te kàddu yi wax bokk na ci Modou Lo ku sarit la ci wàllu xeex. alaaji Nganjaañ bu RFM ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm moom yaakaar naa su waxee si làmb war na cee wax. parce que tamit am na lu bëree bëri lu mu ci fekk am na lu mu si xam kon tey bu xoolee Modou Lo ñu laaj ko ci wàllum xeexam ci yëglekaay bi ci alxames ji ngañ xam la ne wala alaaji Nganjaañ xam la ne Modou Lo mbir bu sadik la si xeex ah loolu dañ koy nangu dëggal ko parce que tamit mu Lo mi mu muy wax loolu ngañ wax Modou moo ko wane si làmb ba tax te yàlla Alaaji nga Diagne mën a taxaw wax loolu kon mu Lo yaakaar naa sarik mu sarik si wàllum làmb ci wàllum xeex wane na ko bokk parce que gis nañ mbër yu mu dóor ñu daanu ñi mu dóor leen yóbbu leen ardo kon yaakaar naa loolu ngañ wax lu valable la pour Modou Lo. ñooñu noonu mu dóor mu daanu ak ñi mu yóbbu ardo ñen nga ma ci mën a limal. bëri na que bu ma ñëwee si les deux bëri nañu ñoom ñaar xeex bëri gis nga bu muy jël ku dafa daje ku Modou daanu te xeex bu metti lañ xeex jour boobu moo ko moo kii nga xam ne moom mooy Issa Pouye gis nga na mu demee xeex la ko mujj a gagné te donte boobu Issa ngi serse bëre bi mais ci jàppante bi ko dóor ay coups yu metti ba Issa kaw te ma kii nga xam ne moom mooy booy kayri gis nga mu demee xeex lañ def xeexu mbedd bagarre de rue mu dóor ko kay kayri jël croisé wala coup benn laawul daanu yaa ngi dégg biñ ci jógee ku mel ni moo Gris gis nañ seen combat si ma fa mujjee avant mu koy fàqat mu def kat app yóbbu na ko ardo mook Eumeu Sène avant muy daan Eumeu yóbbu na ko ardo Bombardier avant ko Bombardier daan yóbbu na Bombardier ardo kon mbër la xam ne xeex moom boobu ngañ di wax mu nga na ba duggaat fa moom mooy Tafatine. waaw Tafatine la ko yëgle xam ne moo yoroon roi des arènes di Bombardier ci jamono ji xeex moom bu metti gañe ko. par décision médicale ñu ne déet na waaye mu ñëw jël ki nga xam ne moom mooy bala gay numéro 2. moom itam jamono jooju mu nekk roi des arènes mais Tapha ñàkk combat ba jóge fa nag toog bëreewaatul def ne balance ñëw dugg ci TNT bi mu duggee TNT bëre ki nga xam ne mooy guy gi daan ko waaye ñëw jël Ama Baldé ñëpp na Tapha day daan Ama far amaa daan ko jël bu gaaw a gaaw a gaaw loolu am lu bëri lu mu wàññi woon ci carrière am mais taxul TNT ba jeex ndax troisième combat la bëri ak Zos bëreeg moom jàpp ko ko mu ko mu daanu mu jógee ca tamit def a bëri 2018 bi a bëri parce que bëri 2018 janvier 2018 Amadou bu metti bañ bëri xeex bëri ba Tapha mbot ko daan ko jël bu rëy moo tax yëglekaay bi loolu mu wax ne Tapha ñëwaat na ci fi mu bokkoon loolu dama naan dëgg la te am la parce itam nag ah, dañ ne ko xamul fa nga jëm muy Sokh ak Ramdaan journal bi mu defee jàngatam ci première journée ak deuxième journée TFP bi ñoom dafa mel def nañ ay jaloore waaw bu dee Sokh la wala muy ki nga xam ne moom mooy Ramdan Ramdan la ñuy njëkkee ndax le 24 la ñu bëri woon muy première journée TFP wu Fallou Ndiaye muy tournoi de Fallou production biñ ko tëggee première journée ba Ramdan ku ne gis na kera na mu daane ki nga xam ne moom mooy doomu dangu ndax dangu da ko woo yaakaar ne làmb ja jeex na mu di ko ki nga xam mooy Ramdan fàqat dangu mu def kaat appi làmb boo xam ne ndongoloo kera amoon na jafe-jafe pour génn ci xeex bi ba général gagné ko par décision médicale maanaam médecin yi dem ba constaté ne que kii mënatul bëri ndax gaañu gaañu yi metti na journée ba neexoon lool macha allah combat yu ne déggoon na seen coow ci ci ci ci ci Lutte TV point mu mujjee tamit ak mobile daan ko jël ko jël bu rëy muy ñaari journée yoo xam ne daal buñ ko euh, buñ ko analyser xool ko mën nañ ne wax dëgg yàlla fàllu combat yu neex la moo xam petit combat la ba si grand combat kon ñuy ñaanal fàlloog TFP bi mais di ñaanal promoteur yëpp itam lu ñu sumb rek ren yàlla yeggale ko ba saison bi dàq saison bi moom mu bokkaat ci samp ab laaj. nee na foog mu daan Modou Anta mu bokkaat ci làmb. loolu journal bi wax tamit lu am la parce que Baye Mandione dafa nekk mbër mu nga xam ne maanaam dañ naan mbër mu mag la parce wane na ko si làmb. ndax champion yu bëri bëri dafa dem ba benn moment nag mu ne ci liñ naan baisse de forme parce que jamono yi boo xoolee combat yi bëri da koo perte bi si mujj mooy digganteem ak lees ci biir géew bi moom la arbitre bi joxoon ndam mais bi lees dugalee recours lees 2 dañ ko joxaat victoire ba kon muy defet yoo xam ne da ko teglante moom bàyyi mu ñoon mën nañ ci lim ay Boy Niang ay ko Sow combat yëpp da ko ñàkk tey nag bu ñu ko joxee xale boo xam ne tamit xale bu espoiru lamb la di Modou Anta ñu yaakaar ne ëllëg ci lamb lay bokk mu war ko fekki dëkkam di Thiès kon bàyyi mu ñoon maanaam ah bu bëggee des ci lamb comme ni ko yëglekaay bi waxee il faut défi boobu ñu ko lancé mu relever ko bu ko defulee daal mën naa xam ne carrière am day dina xaw a jafe dina métti trop trop ci moom combat boobu waroon am 27 janvier waaye pousse nañ ko ba le février waa Leewtoo ñoo tëgg combat boobu. dañuy continuer ci vendredi bi janvier ba léegi. journal bi xëy fësal Modou ak adversaire am Lac de suñu papa Ipongari ñu ñu di leen ñaanal jàmm gudd fan ak wér-gu-yaram moom tamit euh, bu xëyee tey di wax ci Modou Lo Lac de Guiers 2 dama naan lu war am la parce que itam li rek ñoom lambi démb fekk nañ ko lambi tey fekk nañ ko yàlla nañ fi yàgg te wér moom nag li mu wax yaakaar na ci Modou Lo wax ju leer la digganteem ak Lac de Guiers parce que nee na Lac de mooy favori wu combat bi loolu la wax loolu nag moom xëy na euh, am na fi mu ko teg ba tax mu wax ko ndax lak bu ñu xoolee ko mam yi mujjë da koo gagné muy ko mam ak Papa nga jóge ci jël yax yi jub Yékini Yékini Lac de Guiers ko ballaa ko masa daan ñaareel defet bi mu am la de Guiers ko ko teg mu jaar fa bàyyi làmb xëy na moom constat yooyu la dajale ba tax mu ne mooy favori moom la de Guiers digganteem ak Modou moom Ipo Ngari laaj ñu ko tamit wàllu technique waaye nee na Modou Lo technique bu Mbaye Guèye waaw loolu tamit ba tey li la waxoon laa lay waxaat rek fekke na jamonoy Mbaye Guèye fekke na jamonoy Modou kon bu leen comparé ba am lu mu jël ci kii jëlee ko ci kenn gis ne ñoom ñaar déggoo nañu ci wàllum technique ba jël ne Modou tey technique u Mbaye yore na ko loolu itam dañ koy nangu ndax Modou Lo ci lu ñu xam ñun fekke ko ba muy bëree ba tey mbër mu nga xam ne techniquement da nga xam ne kii dafa am technique ndax mbër mu muy bëreel am na benn stratégie bu mu lay boo xam ne dina génn wala bu ci tam yow bala nga koy daane di nga ci sonn trop trop trop yaakaar naa mbër yi ñuy tudde tey ay VIP wala ay ponkol mu bokk ak ñoom cour bi sonal na leen. sonal na leen moom Modou Lo. laaj nañ ko tamit ci wàllu xeex bi nee na combat boobu. kaw muñ ko ci daax lu ci lu am la. wax na dëgg kaw mën na ci am waaw parce li tax mooy Ngañ Jaañ dafa la waxoon ci alxames ji ne Modou Lo xeexu sadik lay xeex fu ne lay dóor te fas nu ne lay dóore ki muy xeexal nag wala ki muy bëreel le penseur du waalo lañ koy woowe muy Lac de Guiers numéro 2 tur wow ci biir làmb la ko wuyu si parce que li ko waral dafa dóor ay mbër ñu dem teer mu nekk mbër moo xam ne xeexam day am précision maanaam li muy dóor da koy xool da koy gis kon yaakaar naa ñoom ñaar bu fekkee kee dafa sadik ci xeex kii nekk penseur bu ñu dajee di xeex xalaat naa bu xeex ba demee une minute ku ci jël ku bu dee ci manto la dal wala feneen fu sensible xalaat naa ci suuf lañ lay fore ñaar ñi moom xeexuñu waaye xuloo nañ muy diggante Robert ak ki nga xamante ne mooy Yékini te ki dëggal loolu mooy Robert. waaw Robert moom moo dëggal loolu ci yëglekaay bi tey xamal ne ñu xam leen waa sunu lamb daal xamal ñu ne diggante Yaxya ak Robert di nijaayam yàqu-yàqu am na ci li ko indi nag moo doon diggante combat Balla gay numéro de ak Yékini fa la mbir ma amee ba Robert xam leen na daal foofa ba loola jeexee ca la leen Yékini génne ci staff bi moom ak Mansour Sakho parce que xëy na wóolootu leen jàpp na nag ay nit a dox seen diggante waa suñu làmb tamit ñoom ñoo xëy indi loolu di ñu xamal ne nag loolu ñu ngi ko jëlee ci Lutte TV point com ñuy nuyu Dembélé wax nañ dëgg loolu ñu leen nuyu Dembélé ñoom xam nga bu ba ay bakkan ak ñi fa nekk ñëpp waaw mais xam nañ ne li leer ba leer daal mooy Yaxya moom digganteem ak ki nga xam ne moom mooy nijaayam di Robert moom jafe-jafe am na ci loolu mais nag nu ngi ñaan yàlla yàlla na saafara ba ñu gisante waat tamit lépp loo gis rek Lamine ci waxtaan lay mujjee. waaw ci waxtaan lay mujjee ba léegi Yékini moom tamit nee nañ doon na ngénte démb ci Joal ba Modou Lo teewoon na fa. waaw waaw loolu yëglikaay bi tam xëy nañu wax ñu ko tey si ajuma ji ne Yaxya ah, ginnaaw tamit bi mu bàyyee carrière làmb arrêté ko mu liir boobu ne nañ Mouhamed lañ la tudd Mouhamed Diop na yàlla def mu nekk liir bu am barke dem ba nekk mag magum lislaam njariñam ay waajuram fekke ko ah Modou Lo tamit yëglikaay bi xamal nañu ne ci ay xibaaram mu nga foon loolu tamit ñëpp xel mën na koo nangu ndax Modou Lo ak Yékini yaakaar naa ne fi mu nekk nii am nañu relation bu sincère. waaw mu mel loolu lañ leen andiloon di leen jox rendez vous altine incha allah ci yeneen yéen